président euh, euh, bërki Dembo wala ñu dégg président Ousmane Sonko wax ben wax de xamné yëngal na le président de la république faalé Je Casamance wala dafa de Casamance nga xam mbañal. sénégalais ak képp kuy internet surtout nak Dakar Actu waaw xam nga ñun Sénégal dañoo baaxoo ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi gis nga Casamance bi fa ñëpp xam nañ ne ñoom ak Joola ay ay kalante lañu def nañ délégation dem seeti di waxtaan pour rek jàmm am euh, ñun xamuñu affaire xeet Joola olof séeréer Senghor séeréer la woon jiite na réew mi euh, gouvernement amoon na tukulóor am Joola am séeréer am ñëpp ñëpp di liggéey ak Wolof ak ñëpp di liggéey. Euh, ñun nag même ñun lébu yi ak joolaay ñëpp xam nañ ne ay am nañu ay lien si maam yeeg yëpp moo tax euh, wax yooyu homme politique waru ko wax dañ koy ñaawlu comme ni ko ñëpp ñaawlu xam ne lu kàllaama lu lu wax bu rafet ci doomu aadama di ko wax suñu réew ñun xamuñu lu dul jàmm bokk ndey bokk baay élection carte la lu affaire a ku nekk fa nga jëm Abdou Diouf nekk na fi olof Senghor nekk fi Ablaye Wade nekk fi tey Macky Sall moo fi nekk comme tukulóor suba beneen nit mën na fi ne loolu amul solo li am solo mooy politique yow bu la neexee nga critiquer diw de li mu fi def man boo leen ma falee naa def lu ëpp li mu fi def wala diw de li mu fi def baaxul bon programme. la ñuy politiquer. waaw xam nga kàddu yooyu dund fi njëkk aussi gis nañ tamit ay nit ñoo xam am nañu pouvoir génn nañ fi bu yàggul am na ku fi génn Barthélemy Diaz <laughs> tey ñu sant Diaz see dañ war a taal am na barki dem communicateur bu ñu dégg mu ne nguur dafa bu buur dafa war di tëj dafa rey donc c' est des discours yoo xam ne dafay jóge ci ñaari ci ñaari côté. waaw mais yooyu euh, yooyu kenn rafetuwul ko man wax moom moom rek de képp koo xam ne yaa ngi wax wax boo xam ne dafa ñaaw day indi euh, wàllu xeet. man dama koy ñaawlu nañu xam ne communicateur dafa war wax wax bu rafet te boole ñu ngi gërëm suñu baay bi fi des alaaji Mansour Mbaye di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér moom gis nga ko kenn du weddiwul ne alaaji Mansour parti socialiste la bokkoon mais amoon na lien yeneen parti Ablaye Wade yeneen parti yëpp am na ñëpp ak jàmm terewul fu mu bu dem ku fa xewle boo ko invité bu demee bu ñëwee nga jox ko cëram terewul àndul ak yow fi mu ànd ñëpp xam nañ ko. kon war a baisser niveau bi euh, bàyyi yenn débat yenn débat politique surtout ci diine tarixa xeet. diine tarixa xeet wala kilifa diine bu wax nga saago ko wala kilifa diine bu wax ngeen wax ko lu bon fii Sénégal kilifa diine kenn mënu ko fi jindi ñooy suñu kilifa. muy tidiane muy mourid muy layel muy fo munti dem kilifa diine kenn du ko jine te nit da ngay am kilifa respecté diine ji tarikha kenn munu ko jëlé sénégal ku ko bëgg jëlé ya fi torox wala da ngay dem bayiko fi parce que alhaji malik amna lu mu liggéey sénégal serigne touba amna lu mu fi liggéey mam limam lay amna lu mu fi liggéey bo démé tay bay ñassangi ni aduna bi fo dem fekk ko fa yaangi deg kon man mi man mi di wax dem naa màkk gis ay taalibe Baay ñu ne ma ñun Baay Ñas mooy suñu sëriñ te ñoom jidd foofu lañ dëkk kon nga xam ne tey ku nekk dem na barki dem ma Njaay gis nga xalifa bi dem na arrangé problème bi yoo xam ne ku nekk dem na fa mënu ko arrangé fa Soudan moom mu dem arrangé ko kon ñun suñ kilifa diine yi dañ leen war a jox ci respecté leen parce que am na fu ñu taxaw ñii xeex nag bëgg xeex tarixa dañuy sonn ñi bëgg xeex affaire man joolaa laa kii tukulóor la kii olof la dañuy sonn rek dañuy xeex ñu ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi am na joolaa yuy sëy ak tukulóor am na joolaa yuy sëy ak lébu am na tukulóor yuy sëy ak lébu am na séeréer yuy sëy ak joolaa kon ñu ñëpp benn lañu. ku ne xam na ni dimanche la campagne yi war war a ubbi. Mhm. tombeek euh, bésub tabaski. tey bu président du Diagne Diecko tey amoon message de paix bu muy lancé jëmale ko ci candidat yi rawatina ak militant yi. li may xamal candidat yi rek mooy ku nekk na nga joxe sa cër respecté sa moroom jaru xeex jaru xuloo jaru saaga jaru def nañu waxante si wàllu programme programme mooy wax ji yow bu ñu la falee député looy def pour askan bi loolu mooy wax ji wax bi du pour ay xeex xulu ku nekk nag sañ nga far fa nga far nañ la bàyyi nga far fa nga far waaye kaay far man par force boo faral ak man ma saaga la ndey wala ma jam la wala ma wax la lu bon loolu kenn teg ko fen ku nekk si faral fi nga far vote bu jotee nga dem votel ki ngay votel tey xale bu si xeex dee ndax homme politique suba yaay perte sa jabar ak say boo amee jabar dañuy gis nañ fi ñoom Mamadou Diop ak ñeneen ak ñeneen ñu fi dee ñi ñu fi dee nii lan moo ko fi jar fitna boobu lan moo ko fi jar dañ doon wax ne ñëw leen ñu mars ñun duñu voté léegi ña sa dee perte ñu boo toogoon xam ne yow da ngay dem voté ji kay jarul woon xeex. te élection élection day am léegi ña nga doon woo ne la ñëw la ñuy xeex dañuy renvoyer élection ñun duñu voté léegi ñu dee léegi léegi ban perte ma. mais lu coow li amoon ci avant législative bi du fi am du fi am du fi am ñun ñëpp accepté nañu pour dem te teewul am nañu ñàkk seen bakkan boobu mujj. waaw léegi ñu ñàkk seen bakkan jaroon na ko fekkoon waxuñu woon dañuy euh, bu fekkoon tey nee woon nañu ñun ne dañuy dem élection kon ñooñu mun na am du ñu dee mais loolu lu ko fi jar tey nañu bàyyi xam ne réew mi ñu ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi élection yi dimanche la si bësu tabax si incha allah yal nañ si yàlla yóbbu ak jàmm dem campagne voté li ñu war a voté ku nekk am nga sa candidat nga voté sa candidat bañ a xeex bañ a xuloo lu ñu xam daal mooy ku nekk sañ nga taxaw sa programme ne sénégalais yi suba bala ma joxe lii laay def lii laay def lii def ku nekk sañ na ko. mais nag nañ bàyyi saaga yi wax yu ñaaw yi amul benn njëriñ Casamance ñëpp xam nañ ne président bu fi nekk jox nga leen cër depuis Senghor am na ñoom Robert bari na ñoo xam ne tey ñu ngi woon nguuru parti socialiste bari na tey Ablaye Wade ay nguuram am na fa ñu ñu fa def tey Macky Sall am na ñu fa def suba yow it boo amee programme Casamance boo jëlee réew mi nga def fa kon nañ bàyyi bokk ndey bokk bàyyi man de am na ay xaritu. joola ak mbokk joola jox naa leen cër te ñoo ñu jox nañu cër xeex amul xuloo amul lébu yi ñëpp xam nañ ne ñun ñu nga fépp kon nag surtout ndagaaru gi nga xam ne nag kuy xeex fi ngay ñëw nañu dimbali ngir yàlla ñun soxlootuñu xeex toj nañu supermarché yi chaque jour ñu toj magasin jàmbur yi suñu doom yi ñooy re ñoo fiy dee nañ ñu dimbali wax dëgg yàlla toj station jàmm station yi ay gérant lañu joxe seen capital di jënd essence di si am bénéfice boo ko tojee kooku fan la jëm dañu waxan dëgg ah boutique yi ñuy toj ñooñu fan lañ jëm station yi ay employé lañu di dund di am lu tubaab moomu ko nañ baay liggéeyu jàmbur yi ñuy yàq lu ko fi jar nañ bokk ndey bokk bàyyi yàlla may ñu julli si jàmm campagne aussi mu commencé bisimilah rahmaani jeex si alhamdulilah rabi alamin ñun daal ndakaaru bugguñu fi xeex bugguñu fi xuloo nañ ñu dimbali te yàlla tax parce que bu xeex amee suñu doom yay gaañu suñu station Dakar yi ñooy yàqu te ñoom ku si nekk sa kër du yàqu sa dara du yàqu te it nañ bàyyi wax bu ñaaw ay naan dugg leen kër nit ñi xaalis baa nga fa loolu mooy lan loolu mooy indi xeex fii am na ñoo xam ne seen xaalis dañ ko ñaq. sàcc ñu ko sàcc ñu ko am na ñoo xam ne tey balaa ñuy dugg si gouvernement ba ba ñu amee salaire am nañ salaire un million et quelque deux millions et quelque trois millions et quelque di dund yor seen njaboot te boobu dugg ñu si gouvernement kon nañ bàyyi lu nit am rek nga ne da nga ko sàcc si gouvernement loolu baaxul ku nekk nañu ànd bokk na et puis dafa am yoo xam ne day mel ni soxor tey yow buur géwél boo dawalee oto bu rafet ma naa ko lakk waroo am oto ndox waroo am oto man waruma am oto keneen waru am oto ku nekk war nga am oto étudiant ba nekk tey université di jàng dafa war a bokk si réew mi parce que ñoom suba ñooy yor réew mi kooku dafa war a jàng am xam-xam pour ëllëgee mun a moom na jàng non mun na politique sax waaye bu mu nangu ku ko xeexloo ba mun nangu ko ko xulooloo parce que ñaata doomu étudiant tey ñoo ñoo génn àdduna ana ana ñi doon doon xeexloo est-ce que yóbbu nañ seen doom yi ñoo xeex ku si ne doo gis doomam ku si ne doo gis doomam seen doom yaa ngi jàng yow tam sa doom na jàng bàyyi xeex bay xulu amul benn sens maa ngi leen di gërëm di sant di gërëm Dakar Actu jërëjëf.